kon day bëgg a dugg ci wax ni ñi gëmee yonante yi ni ñi gëmee yonante yi mooy da ngay gëm ne ay ndaw la ñu yàlla yónni dañu andi itam wax ne yàllaa leen ko yónni nga gëm ni wax ne dëgg kët loolee la leen yàlla yónni kon da ngay gëm ndaw li gëm la ndaw la wax ne mooy lañ ko yónni ba tey nag nga jàpp ne képp ku yàlla yónni rek am na yetti melo yoo xam ne mënta ñàkk ci moom benn ba mooy dëggal mooy dëgg rek lay wax du wax mukk lu amut ñaaral ba mooy sàmm kóolute gi ko yàlla wóolu ba du def mukk lu yàlla araamal mbaalu yàlla sipp ñetteel ba mooy jottali lépp li ko yàlla jottali loo du ci yokk dara du ci wàññi dara ba tey nee na yetti melo yee nga waxoon léegi seen yi safaan mooy jomb ci ku yàlla yónni ku yàlla yónni ku ne fen wax lu amut jomb ne ci moom wor yàlla maanaam def lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib ba tey jomm na ci moom nëbb itam dara bañ koy jottali ci liñ ko jottali loo ba tey jomm na ci ku yàlla yónni ku ne bu firil la nag baat yooyu dëggal moom mooy nee na wax la am dëgg-dëgg bu fekkee la nga wax dëppoo naag la am dëgg-dëgg rek loola mooy asiduxum nee na dëgg-dëgg yi amaana mooy ku yàlla yónni ku ne day sàmm mboolem ay cëram ba du ci laal dara dara loo xam ne lu yàlla araamal la mbaa lu yàlla sib la tabliix moom nee na mooy lépp leen yàlla wax ñu jotli ko rek ñu jotli ko bu mat sëkk bañ caa wàññi dara bañ caa yokk dara fen mooy safaan dëggal xam nga dëggal moo doon wax la am dëgg-dëgg fen nag mooy wax lu bokkut ak la am saa yu waxee lu bokkut ak la am dëgg-dëgg rek loola fen la xiyaana moom nee na mooy jëf loo xam ne nii ku ko xool muy lu araam mbaa muy lu ñu sib lu mel noonu nag ku yàlla yoon du ko def mukk ñàkk jot li lañ leen jotali loo waaw kay loolu mooy kitmaan kitmaan mooy ñàkk jot li lañ leen jotali loo benn dañ ko nëbb benn yoon mbaa am lañ ca am lañ ca bàyyi loolu lépp ak nëbb la daa wax ni nag li nga xam ne moom mën naa dal ku yàlla yónni mooy rek lépp loo gis muy gaar ni ci kese yi ci xarab bi xarab bi mooy loo xam ne tax ci jëmm te mënta beru mel ni xiif ak mar ak sonn ak noppalu ak nelaw ak yeewu ak bég ak jàq yu mel noonu nga xam ne moom day dal doomi aadama yépp rek mën naa dal ku yàlla yónni maanaam ku yàlla yónni lii gaar doomi aadama yi bu ko dee gaar mooy tax doomi aadama yi xam ne kii nit la ne ñoom ci googu wàll ba mën nañoo roy ci moom def la muy def loolu moo tax nag lu mel tawat sax dana leen dal ni muy dal nit kese yi lu may nag muy tawat ji tax ñu lay daw tawat ji tax ñu lay daw moom yàlla du ko teg mu kum yónni mel ne ngaanaak siti nga xam ku ñu wooteloo ngay woote moom buñ la tegee lu tax ñu daw la kon du baax yàlla du leen teg tawat ji waral ñu leen daw mel ne ngaana wala siti wala tawat ji wàññi daraja mel ne yoom lu mel ne nag yéen ñuy def tamit dagan mel ne takk soxna ak jaayal jënd moom da leen di yokk sax daraja ak ngërëm fa yàlla ndax xam nga ca nañuy jaayee ko jëndi ak nañuy takki soxna ca la ñuy xamale doomi aadama yi ne noonu lañu war a defee te ku wane aw yoon rek daal di am tuyaaba ca wane nga nga wane yoon wa dem ca marché baag lekk ak naan ak mboolem jëf yu dagan yi moom def nañ koy def da leen di yokk tuyaaba rek ndax ca la ñuy xamlee na doomi aadama yi war a defee te ku xamle aw yoon ñu bindal la tuyaaba ca xamle nga nga xamle aw yoon li nga xamee ne nag yonante yi wax nañ dëgg yàlla leen yónni mooy kiimtaan yam leen di may ba tax ñu gëm leen kiimtaan yooyu mooy wecc suñu borom ne woon kookat maa ko yónni lu mu wax maa ko waxloo lu mu jëf maa ko jëfloo ndax bu fekkoon yónniwu leen kon du leen may kiimtaan yooyu tax ñu gëm leen te leen di gàccaayal ñu wedd leen toroxal leen yana mu gisa mooy mbir mu xotti baax moo xam ne ka ko def day woote yoonante ñu ne ko defal nangam boo ko defee ñu gëm la mu daal di koy def nag te muy loo xam ne moom rek ko man ñañ des mënuñu ko loolu mooy moo gisa laata muy am rek la koy bàkkoo ni waaw nangam su ma ko defee ndax da ngeen gëm ne yàlla ma yónni ñu ne ko waaw ko defee nag yàlla may ko mu def ko nag waaw nee na loolee day doon loo xam ne ña ca des kenn du ko ca man ndax bu kenn mënee du nekk ti mu gisa day aajow muy loo xam ne menn moom rek moo koy man yàllaa ko defal muy ndimbal di ngañaay moom ko yàlla yónni bu ko defee moom rek mu man ko keneen du ko man nag muy moo gisa maanaam taxaj di nee na mooy ñoo ñeeñu yebal yoonante ba ca ñoom ñu wax ko ne ko nangam day boo ko defee nu gëm la ba yonante ba ci boppam ne leen nangam di xanaa su ma ko defee ngeen gëm ne yàlla ma yónni loolee nag day doon loo xam ne ñoom jàpp nañ ne mënta nekk ñoom nit ñooñee su ko defee nag yàllaay may yonante boobee kiimtaan googee daal di feeñ su ko defee nag ñenn ña jaare ci gëm ci coobare yàlla ñenn ña doxe ca di weddee kanaa njabar laag nangam ak nangam lépp ci coobare yàlla yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa bari ay kiimtaan sëñ bi misaale ci yaar benn ba mooy xarugu weer wa xarugu weer wi alquran junj na ko ci iqtarabati saatu wan shaqal qamar dañoo laajoo yonent bi ne ko na weer wi xar ñu xam ne yàlla la yónni yàlla xaral yonent bi weer wi mu def yaari gaal ñuy jàkkaarloog yaari gaal ya waaye teewul rek ñu ne ak njabar la bi ci des mooy bëtt moomee nga xam ne benn sàmm arab moo ko jàppoon andi ko ba ci yonante bi ne ko mbëtt mii su la gëmut duma la gëm yonante bi ne mbëtt koy jaamu mu ne ko buurub asamaan sii mu ne ko mbëtt man maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamin yow day ndaw nga lu borom mbindeef yi yebal sàmm arab boobee dal di tuub dugg ci lislaam ne bu ñu ne ab yonante kat du jàdd mukk yoon def lu araam mbaa lu ñu sib la waral loola mooy ndegam yàlla leen yónni wax ne ñii ñooy samay ndaw roy leen ci ñoom bu leen seetaanee kon bañ def lu araam mbaa lu ñu sib faaw loola ñu war leen caaro yi te kon day mel ne yàlla ci boppam moo araamal mbaa mu sib ba noppi ne wëlbatiku ne def leen lii ma araamal mbaa def leen lii ma sib loolu moo tax ab yonante moom ci aw yoon rek lay aw waaw nee na yonante yi bi ñu leen seetaanoon bañ def luñ araamal mbaa luy sib kon nëbb nañu ndax kon leeruluñ ne yàlla araamal na lii mbaa sib na lii te bañ ko defee faaw ñu topp leen ca mel ne kon yàlla moo aaye ba noppi wëlbatiku ne topp leen li ma aaye kon yàlla du bàyyi ab yonante mukk muy nëbbu lam ko jotli loo ba tey du bàyyi ab yonante mukk muy moy mukk ndax su moyee rek mooy googi mooy day soppiku yoon te mel ne kon moo ko digle loolu nag kon mënta am nee na bi ñu leeralee ne ku yàlla yónni faaw mu sàmm kóolute ga ba du def lu yàlla araamal du def lu yàlla sib kon kat far nañ leeralaale ne ku yàlla yónni du nëbb mukk mukk la ko yàlla jottili loo ndax xam nga ne bu nëbbee rek def lu araam te nee nga ku yàlla yónni du def du wax lu araam mbaa lu ñu sib te bu nëbboon daldi def lu araam rawante na rawante na nag bu ko su borom ne jotlil ne nangam daa araam mu bañ koo jottali mbaa jottali leen nangam dañ koo sib bañ koo jottali baa nee leen nangam daa war mu ne bu ko bañ koo jottali yooyu yëpp kon ba nga leeralee ne sàmm kóolute mënta ñàkk rek xamal ne kon nee nga it nëbb mënta am mukk mukk ci ab yonante ku yàlla yónni faaw rek day jottali ba mu mat sëkk sëkk du ëpp du yees nee na nag li ñu waxoon ne li dal nit ci kese yi ñu ci xiif ak mar ak sonn ak nelaw ak jaay ak jënd yëpp liñ ne mën naa dal ab yonante ni mu dal nitu kese loolu moom nee na ña bokk na ñoom jamono dañ caa tegoon seen bët muy lu wér a wér nga xam ne moom lu ñu teg bët la ñu di ko nett li ñu koy dégg di koy dégg ba ci nun rek nee na boo seetloo nag ni yàlla def yonante yi ñu daa yëg ni nit ñi yëgee di mettirlu ni nit ñi mettirloo di sonn di nit ñi sonne ci àdduna ji nu nekk loola kon day tax yow mi nga xam nitu kese nga sam xel dalee ca nga xam ne àdduna yàllaa ko bind rek muy kërug coonaak tiis far sax aduna yonante yi ñoo ci ëppale ay tiis ak i nattu gannaaw ba wàllu yi ku ci gën a baax it noona ëppale ay tiis ak i nattu bu ko defee kon nag yow mi nitu kese boo gisee loola nga da nga ci mën a miise xam ne àdduna noonu la ko yàlla doxale def ga yonante yu baax yi daan def nag yu dagan yi di ki jaay ak jënd ak takk soxnaak yi demee noonu moom day gën a dolli seen daraja gën a dolli seen tuyaaba ndax ca nañuy jaayee ka jëndee ka doxale ci kaw suuf ca la ñuy wanewaale nit ñi ne nii ngeen war a doxe ni ngeen war a soppandikoo su boobaa nag wane ga ñu wane yoon wa yàlla da ci yëkkati seen daraja yokk ci seen tuyaaba ndax koo gindi teg ko ci yoon rek yàlla fayale tuyaaba yi gindi gën ko gindi ba teg ko ci yoon wa liw yoonante yi moom nee na boo koy bind ci araf abajada ngay bind jay sun muy jiim ak yaa ak siin soow ba defee siin soow nekk ñetti téeméer yaa nekk fukk jiim nekk ñett muy ñett téeméer fukk ñett wala muy liw yoonante yi li bu yoonante yi la wax ne daa amu wuute am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ñett te loolu moo gën a siiw am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ñeent mooy dayis ndax daal mooy ñeent am ñu wax ñetti téeméer rek fukk ak juróom te mooy hayis waaye mën ngaa jàpp rek lim bi njëkk a tudd mooy jayis ñetti téeméer fukk ak ñett soo boolee nag ñu yàlla wax yi woon te digalu leen jottali ñooñu ñoo tudd ñu ñu soloo soo leen boolee yonante yi nga tudd léegi lim ba day bari daal di mat cent vingt quatre mille téeméer ak ñaar fukk ñeent ci ay junni nga xam ne kon ñu yàlla xamal aw yoon te digal leen ñu woote ca bariwuñ mooy trois cent treize yi ñu yàlla xamal aw yoon nag te néewu leen ngeen jot li ñoom ñoo bari lool ndax boo weesoo trois cent treize yi la des ca cent vingt quatre mille yépp ñu ñu solo rek lañu muy al ambiya ba tey nee na gëm yonante yi am na teqale am na ci ñoo xam ne da ngaa war a ràññeel seeni tur jàpp ne ay tur yonante lañ yu yàlla yónni woon maanaam boo weesoo ñooñu nag boo jàppee ne am na ñeneen ñu yàlla yónni woon ñu bokkut ak ñoom rek mu daal doy du aajowoo ña ci des moom ngay jéem a xam seeni tur ba dara nee na ñi nga xam ñoom la seen tur ñëw ci alxuraan ñooñu nga war ci ràññeel ñooñu nag ñaar fukki juróom lañ way woowu am na juróom-ñett ndax Muhammad Adam Nuh Hud ñeent la idris lot salih daawud mu juróom ñett way woow juróom benn ngi ci ndax xabu njëkk wi am na yusuf yunus ayub xabu ñaareel wi am na haroon yaxya yankob pati way wi am na juróom benn tur ilyas alyasa ibrahim ci xabu njëkk wi ishaq ismahil alkalim te mooy musa ci xabu ñaareel wi way wi am na juróom ndax xabu njëkk wi ñaari tur ngi ci muy zakariya ak suleyman xabu ñaareel wi nag am na ñetti tur muy dul kifli ak xiisa ak Shuaybu boo leen boolee ñu ñaar ko juróom nag ñoom nga war a gëm ci ràññeel dafa ñaan yàlla dolli teraanga yonante bi ak ñi ak mbokk yonante bi yëpp yëpp rek yàlla dolli leen salaatu ak salaam